Euh, ñun ñëpp gis nañ ko arbitre yi tey pratiquement dafa am euh, un malentendu entre la structure diggante structure organisatrice bi ak ñoom moo andi euh, retard match yi fépp quelque part gars yi mënoon mën nañ dem ba sauver yenn situation yi parce que sinon ce serait une journée morte mënuñu woon def dara mais quand je pense que discussion yaa ngi dem diggante Euh, nan la tuddati encore structure arbitre ak euh, waa ONCAV c'est juste un problème de je de communication d'ailleurs parce que dafa am li nekkoon diggante arbitre ak euh, ONCAV loolu ñu discuter ci ba d'accord si beneen wet gi mais entre temps dafa am ni mu demee si beneen wet gi mënuñ ci d'accord moo tax fu mu fu nekk bon du problème xaalis du problème xaalis c'est toujours dans le cadre du travail bon fii diggante ASC Kémo bu Kolda ak euh, ASC Manko bu Dakar euh, nii ni ASC Manko moom moo negum ñetti bal si benn euh, fii ay bénévole la ñuy jël parmi ñun am nañu ay jeunes yoo xamante ni jeunes yu dynamique engagé ñoom ñoo jël match bi en charge te gis nañ ne pratiquement amul benn problème ci seen wet en tout cas c'était de manière consensuelle sinon match mënuloon am parce que ñoom d'accord nañ ci eh, principe bi nañu jël eh, arbitre gars yi booy engagé wu ñëw jox leen ñu eh, jël ñu jëlal ñu match bi parce que pratiquement su nekk woon loolu comme ni ma ko waxee sànq rek te moom dañ doon ñibbi rek duñu am dara te public nekkoon na déjà en place waaw normalement ñaari match moo waroon am te xam nga situation bi nekk fii si Parcelles Assainies bu du duñu def mën a mën a def match nocturne voilà mun na dëkkante wu dans en tout cas à tout moment te bu amee rek ñun ñëpp loolu la ñuy ñun ay amateur lañ bëgg football lañ bëgg dañoo bëgg vraiment ñëpp ñëw bég ñu am ay phase yu vraiment neex et phase yoo xamante ne kenn du ko fàtte